assemblée bi def noonu neena su ko defé assemblée bi mel noonu bu kenn andil abdul Aziz Ndaw lu dul deug way way ku dem ca kanam président abdul Aziz Ndaw bu fa lire projet bu dul deug su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waay waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf si digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen tee.